sama bureau ñu waxtaan boo laajaloon sa bopp duma ci dugal sama loxo mais danga laajal sa askan ne ma Thérèse lan laa mën a def ba sama chauffeur yi parce que Bambilor dafa bëri ay chauffeur ma ne la chauffeur yi dañoo yor kër yi bu ñu amee oto yu baax rek dépense dina mot moo tax ñu jël engagement def loolu mu jur lii teg donc li ñu def nag ñu ànd ci ak crédit mutuel du Sénégal ndax umpalewu leen ne FONGIP ñun nu ñu def financement direct mais dañuy def garantie tey képp ku dem ci banque te amoo loo garantie dañ lay laaj kayitu kër wala ñu laaj la oto wala ñu laaj la ay matériel ay bien ñun nag ci partie garantie boobu la ñu accompagner chauffeurs yi pour que mutuel bii nga xam ne moo nekk la mutuelle de crédit et d'épargne des transporteurs mën a accompagner ñi nga xam ne ñoom ñooy chauffeurs yi

ñi nga xam ne aussi ñoom ñooy jigéen ñi nekk ci géej gi aussi di fa ñëw di loolooy développement ñun fépp fu ñu fekk nit ci développement président Macky Sall lu mu ñu sant mooy boo leen ko mu nee puus mu dem puus leen ko mu dem moo tax chauffeur yi gaari tey seen oto yu bees tàq ñu wax ne nag buñ jógee ci loolu FONGIP atum ren bii foog naa presque mobiliser nañ lu ëpp cinq milliards ci garanti mu tax ñoo ñu mën a mobiliser presque lu ëpp 10 milliards ci ay financement muy ay entreprise yoo xam ne ci dëkk bi lañ dëkk nekk ay sénégalais di créer ay emploi di participer aussi ci économie bi di fay impôt di fay taxe parce que réew looloo ko yor il faut mu am ñuy entreprendre état teg ay mécanismes yu leen di accompagner ñu leen di gunge di leen di dugalal garantie ñu mën a am financement auprès des banques mën a créer ay emploi mën a générer ay ressources mën a téye dëkk bi réew noonu lay doxee te président loolu la ñu sant noonu lañu koy doxalee aussi donc bu loolu passé nag bi ma ñëwee dama déglu Dumbe mu wax ma déglu monsieur le maire mu wax ma xam ne def nañu waaye bu ñu doolee aussi day gën a neex moo tax ñu ne leen ci oto yi ñu fi joxe tey boo leen discuter ak mutuel partenaire bi muy Mectrans mën nañ ci yokkaat njëgu ñaar fukki oto monsieur le maire ngeen xool ak chauffeur yi ñi koy jox ñan la FONGIP gungewaat len ci lool ma wax ne aussi à travers benen ligne de garantie bo xamné am nañ ko à travers Crédit Mutuel du Sénégal dinañ génneel jigéen ñi fofu lu tollu ci 50 millions foog naa mooy juróom fukki millions yoo xamné dañ koy destiner jigéen ñi pour ngeen mëna dem yéen tamit développer seen activité génératrice de revenus liggéey ko ba mu sell rembourser ko seen morom mën koo jot Thank you.